voilà merci beaucoup euh, Thierno Fall euh, malheureusement duñ ci taxaw rediffusion la ñu fàttali ko dañuy dem RFM ñuy dalal tey Oumar Sy député Pastef Yewwi Askan Wi bu 8 jotee ñu àndaat ak yéen incha allah tout à xew biig euh, ak tey bi nga xëyee noo ko jàngate jërëjëf Babacar defe naa ni question bi nga ma laaj pour tontu ci dina dina yomb. li xew assemblée nationale démb ñun ñëpp ñoo ko gisandoo man ma dund ko président de la république Bassirou Diomaye fay ginnaaw bi nga xamee ne sénégalais yi fal nañ ko sur la base d'un programme d'un projet mu ne woon ñaari institution yi moom bu ñëwee yegsi ci boppu réew mi jàpp na ne dina ko fi jële ndax li tax mu wax ko mooy démb wax naa ko ci assemblée nationale ma ne ñépp ñi nga xam ne mas nañu am expérience gouvernementale nekkoon ci gouvernement amul kenn ku la mës wax na la man mus naa siéger conseil des ministres ñu indi fa rapport bu jógee ci ñaari institution yooyu moo xam ay avis la moo xam ay recommandation la pour ñu càmbar ko mën a leen dolli ci même PSE bi nga xam ne ñu ngi koy wax booba ba léegi musuma dégg ñu ne PSE ci benn ligne sax am na inspiration bu mu jëlee ci recommandation avis ci yi nga xam ne moo jógee ci ñaari institution yooyu sénégalais yi seen bopp boo defoon sa micro trottoir laaj leen ndax xam nañu ñaari institution yi yooyu yaakaar naa ne ñi la ci tontu du ñu bari. sëñ si foog naa itam assemblée boo laajoon askan wi ba xam amal na leen njariñ déet lañ lay wax. am déet logique pour logique est-ce que du kuréel yooyu yëpp te yàgg ci ñu saxal leen fii est-ce que ça n'a jamais changé la vie des Sénégalais. waaw xam nga assemblée nationale dëgg la amaana li nga xam ne moo fay jóge ci coow. askan wi di am nu mu koy jàngatee loolu tekkiwul ne assemblée nationale amul njëriñ ci réew mi waaye li ma wax ci ñaari institution yooyu ñu jàpp ne xaalis bañ ca dugal am na feneen fu mu mun a jëriñ sénégalais yi loolu moo tax président de la république indil ñu projet de loi boobu ñun démb défendre nañ ko expliquer nañ sénégalais yi lu tax ñu bëgg mu jógee fii Mm, ci wàllu rationalisation justement yow wax nga nii yow Babacar wax na la finalement logique pour logique bu fekkee ni kay euh, question de d'opportunité kay assemblée nationale bi ñuy wax sénégalais yàgg nañ ko xarab di di wax lu ne assemblée euh, joué rôle am te yéen euh, bi ngeen bi ñu leen di votel ngeen am député yooyu presque ngeen am à peu près la même même score que que majorité bi changé wul ba léegi nii assemblée nu muy doxee. te donc quelque part aussi est-ce que lu ngeen di wax noonu c'est logique est-ce que pertinence bi am na. waa xam nga assemblée nationale député dafay dem dagaan baatu askan bi da ngeen newoon yéen bu ngeen fa nekkee. Ah, euh, ngeen bëri fa da ngeen di changer grand chose ci ci yëf yi est-ce que loolu changé na dara ci assemblée bi ñu gis ñuy yëg ci ay table di di ko dam dam ay micro. waa loolu yàgg nañu wax ne ñi nga xam ne. yàgg nañu ñëw marathon budgétaire nekk dans les départements ministériels yi ñoom ñoo ko wax ñu dégg que contrairement à ce que nit ñi li ñuy wax parce que image yi nga xam ne moom la ñuy gis peut-être à travers les plénières ñoom ñoo ne débat yi nga xam ne de qualité yi nga xam ne ñun la coalition Yewwi Askan Wi particulièrement le groupe parlementaire

parce que ñun li taxoon ñu dem assemblée nationale moo doon la nga xam ne mooy majorité mécanique boobu nga xam ne moo fa doon dox lépp luñ fa indi duñ ko càmbar. moo eh, xam waa léegi lu tax lu tax yi bëgg a tas nag assemblée bi ginnaaw qualité yi ngay wax ni yëpp mi ngi ci biir lu tax nag euh, mébatu euh, dissoudre assemblée tas ko waa xam nga bu fekkee yow amuloo majorité nga am ay réformes yoo xam ne. da nga waxoon ak Sénégal yi ne su ma ñëwee fii laa bëgg a jëmale réew mi mais réforme yooyu pour nga mun ko doxal il faut nga am majorité assemblée nationale. mais justement ci loolu yéen su ma su yàgg ngeen ne waruñu jox majorité mécanique à un pouvoir en place bi ngeen di dem assemblée bi ngeen di dem ci législative yi ñu génn loolu ngeen doon wax kon est-ce que war ngeen laajaate yi majorité logique pour logique. waa xam nga majorité mécanique ak majorité de responsabilité dafa bokkul. ñun dañ ne dañoo bëgg majorité de responsabilité. mooy ñaata député. mooy li nga xam ne moo ñuy permettre suñu bëggee indi des projets des réformes yi nga xam ne moom la ñu bëgg a def ci réew mi ñu mun a am majorité bu ñuy permettre ñu mun a jàllale ces propositions ces projets de loi là. parce que bu ñu ko amul quelle que soit notre volonté quel que soit notre détermination. mënuñu fexe ba changement yi ñu bëgg am parce que assemblée nationale mooy la deuxième. c'est clair on va tourner en rond alors hein, ça, ça ne va pas changer ce pays le système ne changera pas. waa sëñ Babacar xam nga tant que joxu leen ñu tous les leviers aujourd'hui président Bassirou Diomaye fay amul tous les leviers. mais commencé nañ gis leviers yi ngeen yor déjà perte d'emploi yi réer euh, seen président la président de la république ak premier ministre defuñu benn effort pour sauver les emplois dans ce pays des milliers d'emplois ñuy perte chaque jour te mi ngi pale di ko gis chaque jour moom ak premier ministre. Mouhamadou man xawma ma yan perte d'emploi ngay wax. Ah bu fekkente ne tey dañ la jox une direction wala ñu jox la une agence nga ñëw na dama bëgg a def. lu di parle BTP par exemple boo gis nga foofu nu mel BTP yi ñaata emploi ñuy perte Eiffage gis nga plus de mille trois cent emplois su ma juumul waaw mais xam nga bu fekkee CSE itam ak yeneen entreprise bi ngeen ñëwee ba léegi euh, bi ñu yegsee ci réew mi ak léegi ci ñeent juróomi weer dong la jot la toll kon jàpp naa ne fii mu nekk ñu def même bilan à mi-parcours. qu'est-ce que vous avez fait pour sauver ces emplois le président il est là le premier ministre ñu ngi fii ban réaction ngeen def. waaw mais sëriñ bi emploi du ne da nga koy sauver par une bagget magique yow xam nga ne li jëm ci BTP fii ci réew mi dëgg la amoon na ay projet yu fi nekkoon yoo xam ne su ñu demee ba projet yooyu yegg à leur terme. forcément il faut que gouvernement bi di ñëw moom it amaat un programme moo xam bu jëm ci ay infrastructure la pour que BTP bi mën a jogaat bu fekkee ne perte d'emploi yi ngay wax ci secteur boobu ay projet yoo xam ne daf président Macky Sall moo ko doon doxal projet yooyu jeex na à la kuli al ñooñu foog ñu toog ñu xaar ba l'État indiwaat un programme d'infrastructure pour que hmm. BT bi mën a jógaat. Ah, on fa surveiller bu ñu dellusee ci assemblée nationale. Euh, Euh, les menaces euh, à peine voilées du ministre de la justice ci ne gannaaw euh, waa benn nañ li Diomaye indi foofu di projet de loi bi te moom moo ko doon défendre foofu sottiwul lank nañ mm, gouvernement bi na jël ay responsabilités ci ci naka certainement on va utiliser l'artisanerie judiciaire ça vous pouvez faire confiance au ministre de la justice nu muy demee ci sa gis-gis bu député yi bañee lan la gouvernement mën a def ngir euh, naax saayel conseil économique ak au conseil ci sa gis-gis ah, wala nga wax ñu sax li ngeen ci namm. waa xam nga ministre bi moom exécutif lay représenté. ñëw na défendre projet de loi bi malheureusement jàllul mais le gouvernement en tirera toutes les conséquences loolu tekkiwul ne dañuy def hors la loi. lépp loo xam ne constitution may na ko président de la république mu am sañ-sañ doxal ko jàpp naa ne war na ko mën a doxal li nga xam ne nag bu fekkee dañu yaakaar ne ci dissolution assemblée nationale moo tax la nit ñi di xalaat loolu pouvoir constitutionnel la saa yu ko bëggee mën na ko def bu fekkee ne ñaari at yi mat na kon foofu jàpp naa ne débat amu fa du menace c'est d'abord inscrit dans la constitution. Babacar lu mu la bëgg wax mooy CS euh, ak ACCT euh, kii di ay Daffé nee na euh, gouvernement weeki président de la république ñaan na ko nu mu gën a gaawee mu mu mu dàq ñooñu est-ce que jàpp nga nii loolu du forcing ba léegi amul ci assemblée par la voie euh, parlementaire mu utiliser euh, ay décret pour di dissoudre loolu est-ce que jàpp nga nii loolu lu normal la. wala xam nga ñaari institution yooyu ña fa nekk njiit yi ak seen secretaire généraux yi président de la république moo leen nommé par décret kon waxuñu ne da koy def mais dañ ne. am na sañ-sañ bu ko neexoon suba mu jël décret dindi ñi nga xam ne ñooy jiite ces deux institutions là ñoom sax maa ngi leen di dégg waa Benno Bokk Yaakaar ñu naan ñun dañu dañoo dañ faa bëgg indi suñuy nit ñu ne leen bu fekkoon ne projet de loi bi ñu indi bu fekkoon dañoo bëgg a caser suñuy nit rek mais jarul ñu indi projet de loi président mën na jël décret jëlee fa Abdoulaye Daouda jàlloo jëlee fa Aminata ngi Ndiaye jëlee fa les secrétaires généraux yi nekk ci institution yooyu indi fa ay nitam en plus boo jëlee conseil économique et social quatre-vingts membres yi fa nekk yépp président de la république moo leen nommé nga jël HCCT cent cinquante membres ñoo fa nekk les soixante-dix sont nommés par le président de la République. mais seen nomination yéen tamit euh, seen élément kese ngeen dugal ci yenn euh, ci alors que appel à candidature ngeen waxoon seen élément ngeen dugal ci ci yu bëri ci institution walla ci yenn euh, yoo xamante ni ay poste la gis nañ ko fi bi ngeen ñëwee. waaw bu fekkee dañoo des ci ñaari institution yi ñuy wax ne ñun li tax ñu def ko dañoo bëgg a caser suñu nit wala dañ leen a bëgg a boole ak sénégalais yi ma bu fekkoon dañoo bëgg a caser suñu nit kay dañuy def li gën a simple rek président jël décret jël ay nitam dugal leen fa mais dañoo jàpp ne ñaari institution yooyu njariñam bariwut ci réew mi moo tax démb suñu argumentaire yépp ci loolu lañ ko basé wu li gënoon a yomb mooy ñu def loolu li ngay wax ci affaire appel ak candidature c'est vrai indi na débat bu rëy ci Sénégal mais ku nekk ak dégg-dégg ba nga cay am man jàpp naa ne yow docteur d'accord ngeen ak man na yow fii ngay liggéey sax ci RFM buñ la fi joxoon ay responsabilité liggéey ak ka nga wóolu parce que au finish président de la République mooy rendre compte kon mun naa jàpp naa ne munuñu ñu tegal cette euh, euh, alibi boobu nañu ñun ñoo fi waxoon na dañuy def appel à candidature defuñu ko ba léegi sax excluruñ ko excluruñ ne bu ñu demee ba ci kanam parce que il fallait que ñu ñu pourvoir poste yooyu yi nga xam ne moo fi nekkoon ñu indi d'abord ay des personnes de confiance ñu commencé doxal excluruñ ne bu ñu demee ba ci kanam amaan na gouvernement bi mën na changer option kon jàpp naa ne li ñuy hmm. wax ci domaine boobu ba léegi gisuma lu tax ñu jàpp ne dañoo faillir à notre promesse électorale bi nga xam ne defoon nañ ko Sénégalais yi. léegi euh, Abdou Mbow président groupe Benno ci assemblée wax na démb ne tey dina sóob euh, mbir moo xam dafa jëm ci daaneel Ousmane Sonko motion de censure daaneel gouvernement bi. Euh, no ko gisee euh, nu mu mën a nekkee ak euh, ndax am ngeen ci pexe itam ngir kontar loola. loolu sëñ kër discours politique dong la discours politique la moo la gën a xam ne il n'a pas les moyens pour faire tomber le gouvernement. ci ñaari fan bu njëkk bi mooy jàpp naa ne mënul am majorité bu ko may mu faire tomber le gouvernement. donte démb am nañu 83 xam nañ ñaar ñi leen votel peut-être que d'accorduñ ci suppression deux institutions yooyu mais jàpp naa ne sur la question de faire tomber le gouvernement même ñaari député yooyu duñ leen ci topp. techniquement ak légalement ndax am na yoon bu mu mën a jaar ngir euh, looloo mën a mën a am. am na sañ-sañ déposer cette motion de censure groupe parlementaire la yore. waaye bu mu fàtte ne président de la république constitution notament l'article cinquante deux dafa am lu mu ko may am na loo xamante ni nii suñ fa naree yegg président am na pouvoir constitutionnel bu ko may mu jël ay mesures pour dakkal loolu mais tollaguñu fa mais moom bu fekkee comprendre na disposition de l'article cinquante deux de la constitution xam na ne li muy wax mënul nekk parce que le président a tous les leviers pour mettre un coup d'arrêt à un processus de ce genre Ousmane Sonko euh, finalement dina ñëw ci assemblée parce que euh, kii di Ousmane Diagne na loi bi euh, promulgué nañ ko loi bi doon defar règlement intérieur bi waaw xam nga xam nga comme loi bi promulgué nañ ko mais loi bi elle n'est pas rétroactive mu ngi commencer entrer en vigueur à partir de la date de la promulgation de la loi bu fekkee dañoo tënku ci. déet sëñ Sonko dañu woon nañu change règlement intérieur mu ñëw def DPG loolu kay. waaw mais dama bëgg a wax léegi délai délai bi ko tënk délai bi ko tënk bi nga xam ne moom moo nekk ci règlement intérieur assemblée muy quatre-vingt-dix jours yi mu ngi commencer courir à partir de la promulgation de cette. de cette propos de cette. De non mais franchement mais lu tax ngeen di euh, daw euh, DPG bi. non waxuma waxuma ne du ñëw. man dama dama koy wax li texte yi wax. xam nga moom jàpp na ne président le le premier ministre man na ñëw suba moom loolu la jàpp. mais man dama ne ko suma ma woo ci texte yi. loi bi ñu ngi ko promulgué le vingt neuf septembre. kon vingt neuf août vingt neuf août. kon moom bu dele boobu bu fekkee dañu tënk ci quatre-vingt-dix jours yi nga xam ne moo nekk ci règlement intérieur assemblée nationale kon mun naa wax amaat na trois mois pour ñëw assemblée nationale su ko neexee. beneen affaire bi sax mooy ministre bi euh, démb lay soog a wax ni règlement intérieur bi ñu yeesal président promulgué na ko le vingt-neuf mais loolu lu mënee nekk euh, itam ñàkk euh, wekk googu. Euh, c'est seulement hier que le ministre débarque à l'Assemblée way promulgué nañ loi bi loolu yow en tant que député bu fekkee defuñu par parloo est-ce que jaadu na ñu promulgué loi bi le 29 ba démb le 2 septembre euh, assemblée jotul kayit gi président assemblée nationale sax xam naa dafa yor teggin rek ma nga naan ministre ba on attend le texte promulgué à l'Assemblée loolu nu mën a nekkee. waaw mais sëñ Babacar xam nga président de la loi la suñ ko jébbalee président de la république avant mu koy promulguer day saisir le conseil constitutionnel pour avis par rapport à la conformité par rapport à la constitution bu conseil constitutionnel joxe avis président promulguer ñu ñu publier au journal officiel ba fii may wax ak yow gisaguma publication au journal officiel. donc les délais de nu yi ñu ko joxoon yàgg na bi mu jeexee. délai yan gannaaw bi ñu euh, yobbee kii bi pour promulgation il avait suma juumul euh, moins de il avait suma quatre quatre jours pour pour pour le faire mais le président est resté dans les délais saisir na conseil constitutionnel jox na ko avis favorable promulgué na maintenant dañuy publier au journal officiel jox assemblée nationale kayit bi mu éditer un nouveau règlement intérieur baax na en tout cas Omar lay gërëm Euh, ci euh, disponibilité bi euh, ci waxtaan wi ndax seen gars yi ñoom léegi RTS la ñuy dem soo la ñuy waxee ji jërëjëf àdduna moo gudd tànk jërëjëf Salimou. sëñ Babacar. yéen yéen micro bi de. da rek réew mi ah. ñu nag presse bi amuñ hmm. benn problème ah, suñuy xarit ngeen. yàlla mi non yow ku baax nga yow ku baax nga ku baax nga jërëjëf jërëjëf Alimo jërëjëf Soxna Naata. Vous avez besoin de caution sur des marchés publics ou privés Adressez-vous à la SONAC.